combat bi. lu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ñaaw ma wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la man li ma wax moom laa xam mun sama kopp Fodé te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf la xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man. fépp ci booteel Mboñaa nekk leen wax ñu wàcc parce que contre la déggee gis nañ stade bi ñu ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha allah bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha allah. salaamaaleykum mbokk yi le huit la tafaatin Tine ñaa Niang national nationale le huit août incha allah rabbi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar lamb ju rëy lay doon. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yéen bi sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Basirou Mbacke borom mbég bi Basirou Fatou Madou Maam mu ngi noonu di ko jaajëfal bu baax di ko ñaanal gudd ak wér waaye di bég ci yéen ñi topp ci Leewtoo TV yéen nekk bitim réew ak biir réew bi di leen bégee bu baax a baax di leen naan salaamaaleykum ci àjjuma di sell ji waaye dama ñuy bay Babacar ma figoon na moon naa ko lool su ma fayee dara ñëw jukkil leen li gën a fas xibaaru làmb may nuyu naa la. ajaratu Ndeye Mbacke Diop Diop Diop fay naa la maa ngi nuyu bu baax suñu xarit ñuy topp. ci may doon ko Diop doon Mbacke bi rek. ajaratu Ndeye Mbacke ah. fay naa la Mbacke Balla Aïssa. maa ngi lay fay di la ziar ci àjjuma ju sell ji di la wax juma mubarak sa sa sa taille marinière baax na li nga xamante ne bii moom mooy sa càq tey da ngaa dellu cosaan mm. baax na macha allah ziar na ñëpp ñaanal leen jàmm ak salaam. suñu mbokk internet yi yéen tamit ñu ngi leen di wax juma mubarak juma mubarak waaye dañoo ànd ak nga xam te ne mooy seen sponsor numéro un di Huile Jador ànd ak bu gën ci huile yi baax sell set sans cholestérol ah. mm-hmm. ñu ne déet bay baa ko sama yëf la te indi ñu vermicelle ne déet mu teg ci attaaya Jador. cey kenn du ko ak okayaar ndox mu set sell mi nga xamante ne bii dafa oyof ba pare euh, ferñeent ya nekk ci biir na am solo lool looloo tax nag sénégalais yi taamu ko bëggal ko seen bopp okayaar ne naa la boo duggee ci réew mi fu toll nii mën naa wax ne sénégalais yëpp yëpp yëpp moom la ñuy jëfandikoo ndax neexaay te mu neex doy na waa dinaa ci dellu si bala maa tàggoo balaa ñu tëj na si dellusiwaat kenn du moom bokk xeer waaye tey jii vendredi 9 juillet 2021 damay def saraax ci xew-xewu dafa war a daal nga xam ne mooy Papa waaye boo ñaar ak mu war a def mooy indi li nga xam te ne ci combat moom Tapha Tine mooy neexal combat mooy ba mu jëm ci projet administratif di Balla Gaye numéro 2. ci mois de août bi nga xamante ne bii moom la ñu dëgmal suñu làmb nee na ñu ngi ciy xaar. ñaari combat yi nga xamante ni bii combat yu mag la ñuy doon ba pare nekk combat yu neex benn bi Pape Abdou Fall borom PAF production moo taxawal boobu les journées war a am na première août diggante Papa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Siteu bu jàmm gën ñu gis seen face à face bu mujj bi ñu mujjee def ñoom ñaar tàng na neex na ba pare ñoom ñaar waxante na ku ci nekk xas-xas loo nga ak sa moroom ku ci nekk wax nga li nga xamante ne bii moom nga fas yéene def jour combat ba mu nekk combat ba nga xamante ne bii nag Siteu waru cee def erreur combat ba nga xam ne mën nañ wax ne euh, enjeu bi ci Siteu la ëppee wante Papa Sow tamit dafa nekk mbër ma nga xamante ne bii fi toll nii ay moromam yëpp dañ ko war a que Papa Sow moment bii waroon na koo fekk mu dugg ci biir VIP waaw mais yéex yoonu yoonu làmbam li mu yéex moo tax mu mu mu toll fi mu toll nii kon ñuy xaar combat bu neex wante ba léegi ci même mois d'août bi ki nga xam ne mooy Tapha Tine dina ci jàmmaarloo ak ki nga xamante ne bii moom mooy boo Niang 2 Pape Thialis Faye borom Leewtoo production taxawal boobu le combat war am le 8 août ca arène nationale ba léegi suñu làmb nee na combat boobu moom amateurs yëpp d'accord ne bokk na ci komba bi gën a neex ci saison bi ndax ñoom ñaar ku ci nekk waroo def erreur parce que Tapha Tine dafa am ci lu mu jógee nekkoon ci ak ay gàllankoor relancé wu na mais warul delluwaat fu mu fu mu jóge woon euh, ki nga xamante ne bii nag moom mooy euh, Boy ñaa Lac 2 moo ko mujjee daal combat bëri woon coow Lac 2 dafa recours ñu jox ko li nga xamante ne bii moom mooy ndam li kon Boy ñaa bu ñëwee dafa war a wane ne am na place ci VIP te kenn du ko fa génne te combat bi ñu ngi naan boo tëbee dal di xal. da ngaa a beneen tëbi. yaa tàkk yaa ko laal ba léegi gabar sin góor a soog maaraw seeraas c'est pourtant c'est adversaire dëgg nga xam ne mooy mbay guy gi nee mbay mi comme nee na kenn léegi jox nañ ko ay potentiel adversaire moom maa ko war. waaw gannaaw ba mu daanee Mame Balla xam ne jamono bi yëpp nag xam nga victoire. dafa neex boo ci jógee da ngay si dégg naa seeti na Ba. yóbbul ko drapeau xam nga loolu dafa neex ànd ak say mbokk. te doo compal tamit. waaw non war nañoo compal nag. compal waaw may guy bi ñi ngi xaar li nga xamante ne bii mooy suñu comp mi ngi noonu seeti mat seeti na mataar ba seeti na bokki bawol bawol am yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi ko doon jàppale ci combat bi bul fàtte mbay guy gi. bawol bawol yëpp ñu ngi woon ci gannaawam ci combat bi doxal digganteem ak Mame Balla suñu borom def mu am ci ndam léegi nag suñu làmb dafa ñëw. tegal ko ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ay adversaire yi mu war a jàkkaarloo ndax nee na bëggatul la bari ak maa ceeb yi wala mbogom sogoor yi nga xamante ne bii ñu ngi ci làmb ji moom daal nee na ci ponkal yi foofa la teg bëtam moo tax suñu suñu làmb tey ñëw na ko gabar si nga ngi nii maalaw mm-hmm. seera si ngi nii wante góor a sook ngi nii yaay def tànn sa bu la neex mm-hmm. ku la neex nga jël waaye nee na góor a soog moom mbër la ma a xamante ne bii dafa nekk dafa jógee ci ay tolof te ku dugg si moom war nga koo wàññi bu baax yi ak seen a magaloon nag dana ko Jean la wala Paul wala Jean Paul. du ko ci neex rek. yaa choisir. mooy choisir. les de la génération 90 battus Balla Gaye 2 seul Bombardier résiste au lion de Guédiawaye ginnaaw ba mu daane ay moromam. Mhm. daan ay magam. Mhm. Bombardier B52 dëmb rek rek rek moo te Balla Gaye ba Balla Gaye numéro moo def loolu le xam nga moom li tax ñu ngi koy woowee gaynde Guédiawaye gi. lu ko bëtam may fitam du ko xañ ndaanaan kullu fàttirin la te booy booy wër ku mën a bëre wala ngay wër ka nga xamante ne bii ndaanaan la wala ngay wër ka nga xamante ne bii lamba dajee ci moom boo dajee moom da ngay teg seize te toog suñu lamba nag nee na Balla comme ni nga ko waxee Balla Gaye daan na ay rakkam daan na ay maasam wante daan na ay magam ñi mu mujjee daan mooy génération bi nga xamante ne bii ñoom ñooy ay magam ñu mën cee jàpp ki nga xamante ne bii moom mooy ba baaboo yi Yékini ak ki nga xamante ne bii moom mooy Tapha Gueye ñooñu mën nañu wax ni ay mag yi ay ay ay kàngami làmb la ñu woon waaw daan Mohamed Ndao Tyson mi ngi noonu ay kàngami làmb la ñu woon Balla Gaye moo leen fi fekk daan leen ki nga xamante ne bii mooy yëkk ni bi ko Balla Gaye daanee xam nga ne daanaka foofu la jaare tekki tekki ngembam bàyyi bëre mais nag mel na Bombardier ko jaaxal mais 52 ba nekk ci mbuur. nee na ko la fi nekkoon moo fi nekkaat de. nee na ko fa ma la jaarale fa la laay ja foofa laa lay foofa laa lay jaarale allah bu ci yàlla àndee le 31 juillet mu nar a nekk combat bu neex suñu làmb nee na Balla Gaye day jël si revanche am wala day confirmer la mu defoon. ca ah, Gaston production daal di koy taxawal. seen face to face ba nag dina amee tey dimanche. le 24 fay ca teer otel teeru bi ak Wally Seck Wally Balago Seck. Mm-hmm. lël yëpp naa di ramadan. Uh-huh. xale faramaareen ba. naa uh-huh. koo tëgg. mun neex a neex a neex féete teer bi Balla Gaye Bombardier incha allah. la Ndeye Fatou allah mu nar a nekk le 24 juillet euh, Bombardier Balla Gaye fas yéene def seen jàkkaarloo nag xam naa boobu mooy nekk bu mujj bi avant combat bi. Uh-huh. boobu nag dina tàng dina metti dina neex ndax Balla Gaye ku ko xam xam ne mbër la ma nga xam ne dafa mën a jaay événement. dafa mën a jaay li nga xamante ne bii moom mooy bis te laa làmmiñam dàmbul ci poosam loo ko wax <laughs> dana la ko delloo <laughs> mi ngi noonu dinaan tontu du forox mais moom moom fi nga ko koy fi nga ko koy waxee foofu la la koy tontoo ñu war a jàkkaarloo foofu ci journal bi nag nee na cosaan ñeneen ñi ne na teeru bi kon daa ñu mën a xaar cosaan wala teero bi fu mu ci mën a doon rek en tout cas ñoom ñaar daa ñu daje waxante. le 24 lay doon incha allah ca sa dimanche ginnaaw festival jàll ne combat day am fa muy na ko Iba Mar Diop lañ ci xam ne mooy choc explosif la la la doon ñaari xale ñaari xale ya nga xamante ne bii ay espoir u làmb la ba pare bokk ci làmb. mu nar a nekk ki nga xamante ne bii moom mooy Boy Diop ak xeeru ngor euh, Boy Diop ma ngay waree écrit saako xam-xam Pape Birame Ndiaye moo koy waaja ak waa écrit bi yëpp ñu jógee foofa fas yéene ñëw fi nga xamante ne bii moom mooy stade Iba Mar ci dimanche bi wante xewu Ngor ma ngay jógee écrit olympique bu Ngor di euh, écrit ba nga xamante ne bii ay ndaanaane làmb ña nga fa kon daal mën nañu wax ne dimanche bi mën nañu xaar combat espoir bu neex ci diggante ñaari xale yooyu nga xamante ne bii ñu ngi ci yoonu làmb muy noonu nag beneen combat bañ a xaar li uh-huh. a taxawal comme comme ci taxawal nag mooy Samba Ndeleng 2. Uh-huh. ak Soxor Kelle ñooñu la doon wante toftal na ci ki nga xamante ne bii moom mooy Sibel bu Fass Ndakaaru ak ki nga xamante ne bii moom mooy bébé bismi bu sàkku xam-xam. fay production mën nañu wax nag bii presque moom mooy première journée. mu ngi soog a dugg ci li nga xam ne moom mooy làmb ji tëgg ñaari combat yu neex. da nga xam ne amateur yi bu ci nekk rek combat bi. mët na grand combat mu boole ko nag mu nekk ñaari combat yi nga xamante ne bii mën nañ ci gis bëri mën nañ ci gis xeex ndax eh, wax nga ko sànq Samba Ndele dana fa jàkkaarloo ki nga xamante ne bii moom mooy soxor Kele soxor Kele tur wi rek. daa war a wuyu borom soxor Kele waaw soxor Kele. mu ngi noonu nar a nekk journée bu neex incha allah ci weekend. ca noonu nag vingt et unième journée l'arène nationale hier. ka ka jël ndam ne la mooy Pika Pika da moo surprendre Abdoulaye Diop. Mm-hmm. en soixante secondes vite fait bien mu nekkoon première journée Amadia production. Amadia borom Amadia borom Dia. production production moo tëggoon loolu fële ci arène nationale ni nga ko waxee nag nekkoon combat bu gaaw wax naa la ko Ndeye Mbarké combat xale warul am round d'observation warul am dégluwante warul am xaar parce que combat xale warul am calcul. Hmm. Balla Gaye wala Modou Lo biñ ciy toll 2005 2006 2007 2008 ba 2010 gis nañ seen i combat ni muy gaaw. day arbitre day soufflé ñu ñëw def la li ñuy def dem seen yoon mais léegi dañu gis ni xale yi seen ay combat day bëri calcul de trop. mbay damay dagg pare ñi man ay temps mbër mbër bu ndaw daa moo gis mu mu mu mu ci mystique mais léegi xale dañoo jël mystique bi def ko ci kaw. comme xam nga xam nga mystique baax na. mais li ëpp daf lay aar pour nit ñi nekk ci stade bi ak ñi nga xamante ne bii mooy làmmeñ yeeg bët yeeg yooyu gisoo mbay guy gi Mame Balla mbay guy gi bu muy bëri ak Mame Balla première song bi. Mbaye Gouy Gui xam nga ne gàllaaj gàllaaj yu bëri la takkoon mais buñ songoo jàppante combat bi yàgg Mbaye Gouy Gui bi mu ñëwaatee gàllaaj yëpp la tekki ba deseetul benn gàllaaj benn téere rek bu tàkk fii la dese. loolu la moom gàllaaj yi ñoo ma sonal moo yu bëri yi daf lay sonal. bien vrai que nag ci làmb la bokk sarma làmb day taaral li nga xamante ne bii mooy image làmb mais tamit buñ ko topp ba mu ëpp mi ngi noonu bay tekkee téere yi bi mu jàppee maam la ci la ko daan mu jeex. nekk combat mu nekk nar a nekk bis ba nga xamante ne tamit dina neex mu nekk bis na ki nga xamante ne bii moom mooy Pika ni nga ko waxee combat bu gaaw. na daan Ablaye Diop mi ngi noonu vite fait bien fait. Mm-hmm. mi ngi noonu mu wér ko boo ñëwee da ngay def war a def. moo yoon ba léegi combat ba jaxate Siri jaxate jaxate kawe ko taxawal. Mm-hmm. combat ba nag dox diggante Siteu bu Kaolack ak Brise de Mer dimanche rek mu ngi euh, mu nekkoon ba léegi di décentraliser li nga xamante ni fii moom ay journée yemul Dakar kese wala Thiès ga mu fekk baax bi yoon nag mu nga fële ca capitalu di Kaffrine di dëkk ba nga xam ne dafa làmb di am bëriwul loolu suñu làmb wax nee na làmb lam fay am c'est très rare lam fay am bëriwul nag ki nga xam ne moom mooy Sidi Diakhaté euh, fan yi passé demoon na euh, fële ca pour détecter terrain pour jéem a xool bu ñëwee naka la ñu tëddee làmb ji ba nga xam ne du am benn gàllankoor ba mu demee gisante na ak président CRG bu Kaolack bu bu Kaffrine di Samba Samba Ndaw Ndaw Kounda mi ngi noonu waxtaan nañ ci li nga xamante ne bii noonu la fa yéene tëgg làmb ji président CRG bu euh, Kaffrine tamit yombalal na ko lépp incha ñu nar a gis Siteu bu Kaolack ak Brise de Mer ci combat bu rëy combat bu neex ak Sidi Diakhaté dama production contre Pape Thialis Faye. Leewtoo production contre Leewtoo production. loolu Bombardier même jour le 24 le 24. kii woote fii kii woote teeru bi. muy ko muy mbëkkante muy mbëkkante eh, ñaari date ya nga xamante ni bii dañoo teg Gaston Mbengue le Don King de l'arène Pape Faye le boss de l'autoproduction ñoom ñaar seen i date ñoo daje. seen i date. waaw ah, le 24 le 24. kii tëgg dafa Tine Boy Niang kii tëgg Balla Gaye Bombardier ku ci nekk war a def face a face même jour su ma doon su ma ne woon su su ma su woon combat su nekkoon combat diggante Gaston ak Pape Diallo dama daan expérience la ak la ak la jeunesse <laughs> xam nga Gaston Gaston maanaam mu bëri ñeneen. <laughs> mu ngi noonu Pape Thialis nag nekk xale ba xamante ne bii macha allah mu ngi ci mu ngi ci digg ndëndam mu ngi ci digg doole wante tamit euh, bàyyiwul dara <laughs> bàyyiwul dara ak mat. lu ci mën a xamee daal le 24 en daal incha Makan Mbengue mi nga xamante ne bii moom mooy responsable lu Gaston production ñoom nee na seen date duñ ko pousse duñ ko toxal duñ ko àndal ndax. le 24 boobu waxtaan nañu ak euh, hôtel bi ñu war a defee face to face bi waxtaan nañu ak Wally Seck waxtaan nañu ak Ndeye Fatou Tine Titi bokk bo bo finalisé nañu ak ñoom doon nañu le 24. waaw loolu yëpp xanaa ñu xanaa ñu déglu moom day randal wala du randal. Pape Thialis fay xool lan lay lan la wax waaye mbëkkante boobu daal. du oh. ma doy ndax ñu ngi naan jour boobu les amateurs auront l'embarras du choix maanaam duñu xam fan la ñu war a jàpp xanaa. ñu ngi kat kat yi rek kat kat de sama zaa. tànn sa bu la neex waaye ñaari combat ay choc lañ may baax ñaari ñaari combat yu mag lan ñaari combat yu mag lan ba pare nekk ñi ko tëgg nekk ay nit ña nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dundal làmb. pergasoo ku ko xam-xam ne wax dëgg yàlla euh, làmb amul fayam ndax li mu tëggal amateur yi ci ay combat yu neex macha allah euh, mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko mënuñu mënuñu lu dul di ko jaajëfal bu baax a baax Pape Thialis tamit am fu mu fekkoon làmb am fu mu andi làmb ba pare continuer ci dynamique bi mu nekkoon di continuer di tëgg ay làmb yu neex ndax maa tëgg tafaatin boo ñaari loolu rek waaw macha allah dara gënu koo rëy ñoom ñaar ñëpp ñu leen di ñaanal seen journée yooyu ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm barki Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal di ko ñaanal suñu bopp aussi di kontaanee bu baax Mbaye Babacar loolu moo nekkoon di gën a fës ci xibaaru làmb mooy tàggatoo rek. Euh, Ndeye Mbacke may tàggatoowee damay euh, kontaan ci ñi nga xamante ne bii ñooy waa Eau Kayar xam nga ne nag madame moom mooy directrice générale ba di nit ka nga xamante ne bii wax naa la ko développement rek a ko ñor. booy wër nit ku nit ku bëgg développement booy wër nit kuy def lu baax booy wër nit ku mën a def social booy wër nit ka nga xamante ni bi dafa mën a dimbale doomu aadama boo dajee ak madame Mbaye da ngay dëpp ndax yaakaar naa euh, au Kayar bee mu nekk wax dëgg yàlla am na foo ko fekk waaye am na beneen niveau bu mu ko yóbbu kon euh, madame Mbaye dañ lay jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni bi yaa ngi ci jàppale Sénégalais yëpp kontaan nañu ci yow wante kontaan nañu ci Eau bi nga xamante ne bii mooy ndox mu set sell neex bu pare oyof am ay am ay ferñeent ya nga xamante ne bii Sénégal yépp ànd d'accord ne Eau Kayar mooy ndox mi ñuy aar wante du ma fàtte Mouhamed sama xarit bi moom mooy responsable marketing bi mu ngi foofa ca Eau Kayar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xam nga ne Eau Kayar nag ñoom ñoo ñuy gunge ci suñu revue de l'arène bi ñuy def ci Leewtoo TV nga xamante ne bii mën naa ne adduna yëpp moom la ñuy seetaan kon daan day bàkke au Kayar mooy. ndox bi ñuy aar mooy ndox bi ñuy aar waaye kenn a mbay jigéen bu mën góor man ni laa bëgg damaa bëgg jigéen bu mën góor. xam nga dañ na ñaari loxo mooy takk tubéy wante ñaari loxo mooy takk sër. wallaahi loolu lépp baax na jigéen baax na. waaye doo dëj na tey jour spécial la uh-huh. ah, bi mbay nee na dugal sa anniversaire ndax monsieur dafa xaw a xale. waaye bisam oh. daa dellu si. waaw di dee soxna Konaté. suñu yaay ngay wax yaay. Uh-huh. moom mi taaloo Balla Kébé daal di càddoo Jili Kébé damay hmm. bëgg ci moom. kon Jili Thiam la Jili Thiam la di ko ñaanal jàmm ñu bare bari nee naa la ne bu ñuy wax yaay yaayu ñëpp. Hmm. moom dama ko ciy boole vraiment. xamee ku mu jur ak ku mu jurul. Hmm. xamee ku mu dëkkal ak ku mu waa mbedd sax bu ñu leen traité da ngeen naan kii lan la xanaa waa mbedd dañ ko amal dafa am ñoom intérêt te yàlla xam nañ du loolu. dëgg la xol bu rafet ba mu yor. mbaax alalu yàlla baax ga mu yor. Mm-hmm. uuf ñëpp yaatal ñëpp jarawul lakk ndey Soxna Konaté. Mm-hmm. dama lay ñaanal jàmm ju ba sama ci yow sama xol lay tooy. bu mm-hmm. fi jooy la ala kaawu jooy. bu fi jooy du ma jooy dama koy ñaanal maman maman Ndeye Soxna Konaté euh, Ndeye ji seex. Ndeye ji seex tëddee njaaxaan naay boot ñëpp. konaate yàlla na sa jàmm yàgg ñu lay bëggee bu baax a baax xam nga dama koy faral di wax baax alalu yàlla la xarit ba la koy jagleel euh, baax baax lu yomb na wante nga dëkk ci moo jafe wallaay te yow dangaa dëkk ci baax yàlla na la yàlla sàmmal boppam dundal dundal su ma yoo xam xam nga man xam naa yàlla xam na dundal lu bari doo lekk bàyyi ma doo naan bàyyi ma doo nelaw te gisoo ma dama lay jàmm ju bëree ba li nga bëgg sa njaboot yàlla naa la ko yàlla waaye li nga bëgg ci la teral su ma naree am dara te bu ma ko ak yow yàlla bu ko yàlla may yàlla la yàlla may jàmm ju bëree bari bëri bëgg naa la bëgg bëgg yow day sama xaare xatti bese à toi noonu laa lay joxe ndig daje ëllëg incha allah ci TV leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen combat bi. lu mu si bañul. man bañuma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ñaaw ma wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat loolu ci bañul moom boo ñaaw ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeeg ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la. man li ma wax moom laa xam mun sama kopp xool de te incha ci kàttanu yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom. parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf la nga xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne ni man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man. képp ci boo teel Mboñaa nekk del wax ñu wàcc parce que contre la déggee gis nañ stade bi ni ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha allah bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha allah. salaamaaleykum mbokk yi le huit la tafaatin Boy ñaa arène national le huit août incha allah rabbi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar la mu juróoy lay doon.